bismillahi ya nuunu hay bilaa manaay walantihaay hamdan li rabbi xayri murabbi xadra maxalbi bil ixtidaay loo sukoori bilaa kufoori wa huwa nasiiri minhu fidaay ثنائي لك التجائي ما جدائي يا من سباني يا من هماني هما جفاني بمحو دائي أسبل ستوري أصلح أموري كسر خيوري بلا جدائي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة entreprise bu toll nii liggéey bu ak liggéey yi mu yor ak responsabilité bi yi yor bu mën a xëy tëj bureau ba ñëpp ñëw ba weer wi teroo ñu tëj sànc bi lépp taxaw ñu bàyyi lépp Tuuba loolu rëy na lool waaye nag sant ci yàlla xam ne yàlla moo ko nar a defal lu baax moo am laay te yàlla bu naree mbir da koy wutal ay sabab xaw nga jaar ci sabab yee jaar ci yoon wi ba taseeg ni mën safi usuli bila qufuli li jubbi suni damir daari habli tilawa mal halawa habli diraya la talanai azna taali bila dihai bidihiyali bila bugai nirban matani si si Ablaye bu bëggee liggéey ci réew mi ak yoonu Sëñ Tuubaa dana ko yomb waaw nee na baat bi wolof yi wax naan jote mooy jiitu joote moom ab sëñ Ablaay loolu la def dafa taxal doxal ak jote kon bi mu ko doxal ñoo ñépp dañuy ànd ci luñ bëgg nee na li mu wax dëggal nee na barabu suñ fàll bee moo fa demee damay wax ne gis naa lu nekk ci liggéey aw melo waaye melo liggéey bee nag wax dëgg yàlla maa ngi koy doo gis nag te defe naa sëriñ Abo moom itam noonu la ko gisee. yàlla def na lay ay teraangaam yàgg naa ñëw ci man te mosuñoo tegante bët yàlla yàlla seede na ko kon nag nit bu la lebalee bor boo xam yàlla ak Sëriñ Tuubaa rekk tax mu def ko fekk yow yaa ngi bëgg a xamuk bëggam ba mën caa jàpp. ku munta leble it war a mën a fay bor nag kon bu ñu demee ba xam ni dëgmal na dara te bëgg ko ñaari anam lañ cay doxe mooy ñaan ko yàlla ci barkeb Sëñ Tuubaa ak jàppale ko jàppale ko wér te xam na nit mën nan ko ba Sëñ Tuubaa liggéeyale suñu borom ba noppi li des ci àddina da ko ko wise te ci bitib loxoom la ko teg kooku fi sàkku si nag ñu jox la ko kon nag ñun bu ñu amul darajay loolu it dafa bokk ci li may gën a ñaan suñ Touba waxtu wu ne. Mhm. mu ci kër gi ci Touba ak ci kër fii ngeen ñëw tey. Mhm. yaakaar mhm. du fi tase mukk eh, kon nag na seen xel dal. Ah, danaa ci jàpp. danaa ci ñaan yàlla it jàpp gi. diir bu gàtt da ngeen ci xam dara. loolu nag eh, li ci ëpp solo. Eh, li ngeen di wut ak ñu ngeen koy wute. ñu waxtaan ak ñoom jox leen digal. ñu ànd ko yéen. loolu loolu rek ci am mu ne moom sëriñ bi nee naka jekk xam na Ablaye bu baax mu ne ba mu koy xam jamono sëñ Saliou la waaye naka jekkit mu ne pëste ba mu gisoon ci moom bu yàgg ba tey moom la gis ci moom rek mu ne yoon wi ñor ko lool yoon wi ñor ko lool mu fonk nag waa Kër Sëñ Tuubaa yi ñëpp di ci demee xolam ak yitteem ak pësteefam. sëriñ bi nee na ñu ngi koy ñaanal bu baax ci turu sëñ Mamadou mun mu ne moom mi nga xam ne li muy jëf sëñ Muntaxa tax mu di ko jëf sëñ Touba tax mu di ko jëf waaye nag sëñ mun Muntaxa moo fi sëriñ Touba mu ne kon nag lépp moom jëmam a tax mu kon ñu ngi koy seeral bu baax di ko xamal ne sëñ Touba gis na ko ñu ngi koy ñaanal suñ borom dolli kattanam mu ne moom kat xam nañ xolam bu baax a baax akuk taalibeem sëñ Touba rek ko ñor alalam jëpp mën na ko def sëñ Touba toog loxoy neen mu ne nii mu def barabu sëñ Mamadou Fadal bi doy na ko sëkk bu ca mu doy sëkk mu ne kon lii muy defaat nii ñëpp ko ci war a sant ñëpp ko ci war a roy mu ne waaye sëñ Touba waxoon na ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la jomb mu ne kon yàlla na ko Sëriñ Tuubaa defal lu ko jomb